nañu xola daal ni ñuy defee bu ko defee ñu. d' accord Lamine avant ñu ñu jóge foofu euh, Mansour li li xew Ngor euh, coow coowal suuf mais euh, dañu gis ni foo jaar ñu dugal ci lu jëm ci wàllum politique ndax gis nañ démb Ousmane Sonko ak sortie bi mu def ci guddi mu ni nañu génn dem jàmmaarloo foofu mu ni fitna la bëgg a yee foofu ca ca ca Ngor donc mu nekk loo xam ne gis nañu maire maire maire maire diwaan boobu mu yëkkatee ay kàddu également rafetluwul lool te ñu bari également rafetluwuñ kàddu yooyu nga xam ne moom la Ousmane Sonko non c'est que c'est que comme elle ni euh, moom lay moom lay wax ñi nekk ci nguur gi ñi nga xam ñu jiite réew mi ak politique bu ñu mën di à ak lu ñu féete féete suuf ci politique fokk nous, am dépassement ci discours homme politique te bañu def seen bopp yi benn complexe ci opposant comme Ousmane Sonko wala comme keneen histoire au Sénégal à chaque fois mu am yu parti politique dañ type joxe seen xalaat mais mënu la tee déroulé Ousmane Sonko dëkkul nga Ousmane Sonko bi wax sax Ngor da koy jaawale ko quartier te ñëpp xam ne ñi miin Dakar village Ngor la ñuy wax nga xam ni kon kii miinul Ngor mais homme politique la foog mu joxe ci xalaatam loolu wërta mën a tax état di tremblé wala ñi nekk ci ay autorités locales yi foofu di tremblé pour tontu Ousmane Sonko wax na dina am beneen autorité bu wax ñun ñu ngi ci wax ci suba ba léegi presse bi ñëpp ci la ñu bind mm-hmm. mais mais Ousmane Sonko waxe après dañuy mel dañuy jannaxé est-ce que du moo taxit ñu réagir ci ça si woté ça pose problème. Mm-hmm. c'est que it nag il faut ñu il faut ñu. Ousmane Sonko ci sen tank ñom ñoko transformer transformé def ko sen tank Ousmane Sonko sénégalais la citoyen la comme tout le monde ko am droit joxé xalaatam ci bép situation bu am ci réew mi diko ko déplorer. foofu tey muy def ay vidéo di génne mais bu jëk li doon am mooy euh, parti politique yi fi nekkoon yëpp dañ doon am ay réunion hebdo.

dañ wax dañ fexe coow li nekk nga jeex au lieu ñu jël propos Ousmane Sonko bëgg ko def benn support pour minimiser ko coow li nekk ngor mhm. dama ni laataa Ousmane Sonko di wax laataa keneen di wax mhm. bakken moo rot mhm. man loolu laa xëyee tey waxu ko bakken moo rot te ginnaaw Ousmane Sonko wax na dina am yeneeni njiital parti politique yu waxaat pour dénoncer ce qui se passe bakken yi rot ci loxo way takk der yi loolu dafa war a takk Ibrahima je pense que situation bon on va aller voilà ci Birahim beneen tam. Mhm. Euh, je pense que situation ngor bi. Euh, nekk na lo xamanteni comme ni ko di waxe c'est c'est vraiment alarmante. Mhm. Euh, lan moo parce que boko ko seetloo man damay bëgg à chaque fois ñuy wat ci ginnaaw coowalu souf nekul la première fois muy xew ci biir rew Sénégal. et puis c'est pas la première fois encore une fois muy am ay jég ay dégâts collatéraux comme ni ko Birame di waxee. Mhm. nañu fatali ko avec problème bi xewoon Ndengeleer. Euh, ñu fàttalikuwaat encore une fois problème bi xewoon Mbourkat dans la région de Thiès. fàttalikuwaat euh, justement ah, donc ñu wat encore une fois jamono ci ñi wax problème bi xew Palmarin ak fimla hmm. des communes yo xamante euh, manam ay entreprises étrangères ñom ñoy ñëw bëgg jaay dolé nangu seen souf jaarale ko en tout cas par le biais de l'État donc tout ça c'est des choses yo xamante ay litiges fonciers la yo xamante il faut que ñu régler ko une bonne fois pour toutes légui nak tay je pense que coowalu Ngor mom mo jóg moo indi ay jafe-jafe moo tax tey jii. Euh, ñi ñëpp di ci ci wax mais il faut ñu ñu généraliser en quelque sorte débat bi parce que. Mm-hmm. dama gis ne coow la suuf li muy indi coow ci biir réewu Sénégal bëri na te peut-être euh, tey ngor moo moo moo aaye mais ëllëg peut-être aussi mën nañu gis beneen situation moo xew dans la mesure où sànq maa ngi koy wax bu ñu gisee situation bi xew diggante Palmarin ak Fimela population bi jóg taxaw ne ñoom du ñu nangu benn yoon. Mm-hmm. cette entreprise là ñëw di.

espace bi nga xam distance bi dox sen diggante bari wul am amna ben gendarmerie bu fa nekk normalement bon sama xalaat bopp lay joxe normalement je pense que urgence est-ce que nek na ñu samp gendarmerie au niveau de Ngor c'est une point d'interrogation dans la mesure où bu fekkente ne état mu ngi wax équité territoriale équité territoriale buñ ñu ko waxee dafay ànd ak sécurité et bo génnee dans la dans l'intérieur du pays du Sénégal da ngay gis benn gendarmerie wala benn police boo xamante ne en fait dafay assurer la sécurité de pas moins de dix régions wala euh, ben, voilà euh, dix communes yoo xamante ne dafay nekk euh, ci ci ci ci biir benn région entre autres je donne l'exemple de par exemple dans le centre du pays Fatick que je connais Diofior Fimela Palmarin ba dem ba côté Joal ñëwaat dem ba côté nu mu tuddati vers vers Fatick ñaata gendarmerie lañ am il y a que deux gendarmeries yu fa nekk ci ci région boo xamante ne peut-être mën nañu jàpp ne am na euh, trois départements donc ça c'est des choses yoo xamante ne man je me je me pose la question de savoir est-ce que réellement équité territoriale bi ñuy wax ñu ngi koy xalaat pour àndale ko ak li nga xamante moom moo jëm ci wàllum sécurité donc ça c'est c'est des questions yoo xamante ne war nañ ko poser maintenant nag euh, comme benn xam-xam ni ñu koy waxee pour daalalee foofu benn borom xam-xam ni ñu ko doon waxee euh, il faut ouvrir des écoles pour fermer des des des, des prisons et là je pense que l'État ne priorise pas exactement cette situation là pour pouvoir mettre en exergue euh, le le désir de cette commune de Ngor implanter une école à la place d'une gendarmerie euh, je pense que c'est quelque chose de on ne c'est une bonne fois. merci Lamine Brahim, euh, rapidement à propos de Ousmane Sonko par rapport à ce qui s'est passé à Ngor Sonko Macky Sall Malik Gakou on le donne, euh, il faut pas qu'on politise le débat mm-hmm. et surtout une situation. Les politiques en tir profitent mm. pour bonheur hein, les lignes. Non, que toi là, il n'y a rien à faire. Moi, je m'attends. Non, non, comme on le donne, mais son coup, mais maquissal, mais comme on le donne, mm. nous nous bougons finit en ligne. Priorité de la malade, mm. mais qui m'a dit ou manmarti top une ligne malignée d'appeler vol maligné. C'est pas que ni fait manifester dañoo contre Macky Sall. c'est pas que ñi fay manifester dañoo ànd ak Sonko wala ñu ànd ak keneen ku mu mën a doon le plus important mooy fi ñu toll nii. bu ñu politiser situation boo xam ne surtout ay nit faatu nañ si. d' ñu ñu jeexalee foofu. waaw ak euh, tàggat yaram mi mu ko waxee sànq ci kàllaamay nasaraan euh, Sénégal tey tamit la ñuy daal di am euh, jot seen raaya maanaam seen drapeau national ñi nga xamante ñoom ñooy équipe nationale U20 ndaw yi nga xamante ne seen at yeegagul ñaar fukki at kon ci kanam yi tuuti bu 18h jotee lay doon foofu la ca primature euh, ci loxo yi ki nga xam ne mooy premier ministre Amadou Ba naka noonu doon ministre bi yor wàllum tàggat yaram jamono jëlee gannaaw nag ba nga xamante ni Yankhoba Diattara daal dinay teg ndombal tànkam euh, kon tey lay doon incha allah bu ci kanamee euh, bu 18 heures jotee incha allah daañu leen toppal boobu lépp xibaar digtal leen ko mm-hmm. waaye ci wàllum tàggat yaram ba léegi la ñuy jeexale ci àllalu dégg ñu ngi koy waxtaanee ak Ligue des champions